Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. tiit ak njàqare la ñu nemmeeku fii ci Sénégal rawatina ndakaaru ginnaaw nag bi la feebar di coronavirus duggee ci réew mi bi la mbir nag dara sababu ko lu dul ab français bu doon yeewoo fële ca Almadi ginnaaw si suba rek lañ doon amal test yi fële ca Institut Pasteur ginnaaw bi ñu noppee rek ci test yooyu di wane ne waa ji dafa am doomu jàngoro bi di xamle rek ne jot na amal voyage ni ki barki démb ci roplaan bi di Air Sénégal naka noonu nag jëwrin bi jiite wàllum gi sàkku ngir ñu topp mbooleem ku nekkoon si boobule roplaan te wàcc fële ca aéroport Blaise Diagne ci fàttali rek laata Institut Pasteur di confirmer boobule kaa kii di njiitum réew mi di président Macky Sall jot na amal ab ndaje fële ca palais ngir rek waxtaan ci boobule mbir ginaaw nag Algérie Égypte ak Nigéria Sénégal mooy ñeenteelu réewu Afrique bi nga xam ne jot na ci feebar bi di coronavirus fële France nag ñu fay faral di amal ndaje bu ñu duppee salon international de l' agriculture et de l' élevage foofu nag euh, maire ba nga xam ne moo di euh, François Davier di maireu Balme dafa daal di am feebar bi di coronavirus te jot na fa daje ak ñenn ci suñu njiit ñi ku ci mel ni ministre de l' agriculture et de l' élevage ak euh, délégation wam ginnaaw nag kookule di François Davier defee annonce bi ci page Facebook am di wone na rek dafa am virus bi tiitaange ñeewal na bépp sénégalais jàngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon